حمدا لرب خافر شن بالأنعام خابل توبنا للفي بنا mbokk jullit yi mbokk taalibé yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér sëriñ Saliou Mbacké xalifa sëriñ Afia Mbacké sëriñ Abdou Bakh Mbacké xalifa sëriñ Xaasim Mbacké ak mbooleem jabootug sëriñ Xaasim Mbacké sëriñ Xaasim Mbacké xalifa sëriñ Cheikh Mbacké Xaasim ak mbooleem jabootug sëriñ Cheikh Mbacké Xaasim ñoo leen di fàttali di leen yëgal ak di woo ci bés bi nu baaxoo defal at mu nekk seen waajur sëriñ Cheikh Mbacké Xaasim ñu di ko amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier 2023 dëppoog àllarba bi njëkk ci weeru Mbacke muy bésub fàttaliku bésub ñaanal bésub sant ak màggal Serigne Cheikh Mbacke Xaasim ñuy sàkku ci kuréelu xasida yi daara alxuraan yi jumaa yeeg jàkka yi lu nu mën ci jàng alxuraanu karim ak xasida ñu def ko addiyee Serigne bi programme bi ñii lay tëddee 8h 13h jàngum alxuraan ak durus xasida 13h 14h30 julli ak bernde 14h30 16h30 kuréelu xasida 16h30 ñu waajal julli takkusaan jublu ci conférence bu mag ba nu fay amal thème ba Serigne Touba ak tarbiya conférencier ba Serigne Gana Messere buñ ca noppee Serigne bi ñaanal mbooloo mi ñaanal réew mi ñu yewiku ba déwénati incha allah ñu di ko yëgal njabootu Serigne Touba gépp ak mbooleem cheikh yi bi ci woo mbokk talibe yi ci biir réew mi ak bitim réew mbooleem daayira yi mbooleem jullit yi mbooleem këru diine yi soppe yi ak wëllëre yi bés bangoog fàttaliku bésu sant ñaanal ak màggal Serigne Cheikh Mbacke Xasim ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier 2023 ca Touba kër Serigne Xasim Mbacke ñuy ñaan ci yàlla ci barke Serigne Touba képp ku ko teewee mu doon sag pajum aajo ci darajay borom bés bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.